xibaar daal ne xamle bu baax a baax ki nga xam ni moo di Pastef les patriotes mu ngi gën di dajale leen ci ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci at pouvoir bi fi jugee di pouvoir président Macky sàll ndax kat soxna si nekkoon fi député di wéeturu Adja Mergane moom Kanouté daal ne fekk ci parti bi di Pastef les patriotes ci loolee sax mën nañ ne ki nga xam ni moo fi nekkoon tey amalantoon ak yoon di wéeturu Dora Gueye jamono gu ñu waxee ak yéen moom daal ne génn réew mi ba tax na jamono mën nañ ne ñi nga kenn ci ñoom ak takk der di ab colonel teg nañ ko loxo ci coow loolu lii ba tax na moom mi nga xam ni moo fi nekkoon di ab journaliste di wuyeetu turu Ahmed Ndoye moom tamit mën nañ ne am actuel jamono guñ toll nii ay mbiram mu ngi gën di doy waar ak ki nga xam ni moo di policier boobu nga xam ni moo daal di def lu ni mel ba tax na mun nañ ne moom mii di soxna si di wuyeetu turu Adja Mbergane nekkoon ak député waaye tamit bokkoon ci mouvement bi di Benno Bokk Yaakaar di parti bi di APR président Macky Sall moom mi nga xam ni moo fi nekkoon njiit réew mi Sénégal moom Adja Mergane Kanouté nekkoon fi député daal ne indi ak ndimbalam jàppandalam ci liste bi di Pastef les patriotes ci législative anticiper ñu war a daal di dëtmal tax na xibaar gi day xamle une nouvelle forme de transhumance moom ni nga xam ni moo di ancien député bi di wéy turu Adja bu député bu Benno Bokk Yaakaar di wéetru Adja Mergane Kanouté moom kat dina daal dem jàppandal liste bi di Pastef les patriotes ci élection législative anticipée yi war ama dimanche le 17 novembre 2024 bi ñu daal di dëtmal ba tax na jamono guñ toll ñu bëri daal di rafetlu li ni mel ndax kat dañu jàpp ni bi di Pastef les patriotes ku daal di ak li nga xam ni moo di majorité foofee ca Assemblée national ngir kat li nga xam ni moom la war a mën a taxawal ci président de la république li nga xam ni moom la fi diggee woon mu mun am ñu am bu baax a baax mercredi le 6 novembre 2024 gile moom soxna si la di Adja Mergane Kanouté ci kanamu ki nga xam ne moo fi ministre di yo turu Birame Souleye Diop foofee la daal bu baax moom dina jàppale bu baax liste bi di Pastef les patriotes les échos daal di xamle moom ni ne nekk na acte yi xam ni saa ne dañ koy gis ni mu nekk acte bi nga xam ni lépp la nekk ci ci li nga xam ni moo di ak nouvelle forme de transhumance ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk di opposition bi daal di jógee di dem ci nga xam moo di mouvement présidence ba tax na moom kanu Mergan Kanouté noonee la daal di defee li moom kat daal di nay dem fi nga xam ni moo di parti bii di Pastef les patriotes mu nekk acte bi nga xam ni daanaka bett na ñu bëri ndax lu waral li ni du lenn moom soxna si saa su nekk ku dëgëral la ngir dañuy gis ni taakal yi nga xam ni daanaka daf jëmee ko ci parti bi les Pastef les patriotes waaye tamit di ko jëmee ci ki nga xam ni moo di seen njiit la di Ousmane Sonko mu nekk ay ak yi nga xam ni moom soxna si di Adja Mergan Kanouté daawul may kenn dara warawat na Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoo faroo ca moom waaye nag lu ci mënta am ba am jamono guñ nii dafa mel ni Sénégal moo daal di soxla ba tax na képp ki nga xam ne jàpp nga ni boo jàppalee Pastef les patriotes li nga li nga bëgg mooy kat ñun mën a defar Sénégal dinañ ko defar loolee sax dafa jot nga daal di mën dem moomee mu nekk acte yi nga xam ni kon daanaka loolee la tax ba tax na mën nañ ne moo tax ñi daal di dem dem dem mu nekk acte yi nga xam ni lu daal di yéeme waaye lu ci mënta am ba am daal nañ ci xam nan la wànnante di mujjee ak i gëtam ba tax na moom mi nga xam ni moo di door a géey door Dora Gueye ñu na ko toppee li nga xam ne moo di escroquerie financière ba tax na mën nañ ne escroquerie foncière ba tax na mën nañ ne jamono gii moom Dora Gueye toppoon ko mu waroon dem du wuy ay yoon bañ tegoon ko li nga xam ni moo di sous contrôle judiciaire de ngiraaw bi nga xam ne daan nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci wàllum justice jamono gii daal koy tere mu génn mim réew di Sénégal waaye nag daanaka moom door a génn réew mi ba dem na feneen daanaka mu nekk acte bi nga xam ne kon nag daanaka Doro Gueye dafa daal di daw mim réew di Sénégal ca loolee moo tax moom Doro ginnaaw ba mu génnee dem nga xam ni moo di colonel bi di wéetu Cheikh Sarr nañ koy placé li nga xam ni moo di mandat de mu nekk acte yi nga xam ni acte yu daal di doy war la acte yi nga xam ni mu daal di yéeme la waaye nag daanaka lu ci mënta am ba am dinañu xool kat moom mi nga xam ni tey jile moo di Doro Gueye ginnaaw ba ñu tegee loxo colonel bi am den moom dina daal di dellusiwaat ci mim réew wala lu ci mënta am ba am dina ñu xam naka la waanante di mujje ak moom mi nga xam ni moo fi nekkoon journaliste nekkoon télé bii di D-Media Sen TV ginnaaw ba loolee moom di wuyee turu Ahmed Ndoye mën nañ ne coow li nga xam ni moo daloon ca moom nit ngir kat ak njuuj njaaj bi nga xam ne amoon na ko ci permis de conduire ak ci attestation boobu boobulee tax na Ahmed Ndoye boobu le daal nañ koy pousse ba yemoo le douze novembre biñ daal di mal ginnaaw be loole moom Ahmed Ndoye dañ ko daal di topp di ko tuumaal ci lu jëm ci euh, accusation bi nga xam ni moo di conduite sans permis maanam dawal oto bi nga xam ne amul benn yoon lii di permis ca loolee daal di gaañ ak ak nit waaye tamit ca loolee yemu ci faux ak li nga xam moo di foo document document ba tax na mun nañ ne moom procès bi lee mu ngi gën di dooy waar ndax kat ginnaaw bi loolee moom Ahmed Ndoye ak ki nga xam ne moo di policier bi lee di wee turu Abdoulaye Sow ginnaaw jël loole foofee nga xam ni moo di le 7 jeudi 7 novembre bi daal di lañ la waroon àtte dañ ko daal di puusaat la yemoo le 12 novembre biñ daal di dëtmal ginnaaw jël loolu Ahmed Ndoye li ñu ko daan toppee bëri na loolu ndax ay infractions yu bëri yi ñu ko daan toppee lu ci mel ni conduite sans permis mu daal di nekk ki nga xam ne dafay daal di dawal te amul benn yoon permis waaye tamit daal di li nga xam moo di blessure involontaire maanaam gaañ-gaañ bi nga xam ni moom it ak teef da cee nekk waaye tamit daanaka bokk na ci li xam moo di feu usage de faux document maanaam di am këyit yi nga xam ni këyit yi wérul benn yoon ba tax na moom mi nga xam ne moo di policier boobu di Abdoulaye Sow dañ nañ ko toppee li nga xam ni moo di complicité ndax kat jàpp ak ak li nga xam ni moo di complicité boobu de dañaa jàpp ni moom dafa am ak tayef bi nekk ci ginnaaw waaye tamit li nga xam ni moom lañ ko daan toppalee daal di nekk mbir bi nga xam ne dafa daal di délivrer benn fausse attestation jëmee ko ci ki nga xam moo di Moussa Ndoye loolee nekk ak yi nga xam ni lu daal di doy waar la kon nag lu ci mënta am mbaam dinañu xool am ñi leen naka la wànnit du ma ak gëtam ci at bi nga xam ni daal dañ koy pousse mu nekk mbir yu daay di doy waar bu leen di fàttee abonné aimé partager commentaire like ndax kat saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la